Sonaara fan yee passé dama la doon seetloo mbiru mbiru Bougane Gueye Dany nga ni ma sumaatul danañ ko teg loxo teg nañ ko loxo dem bu mettre ko en garde fi vue defeere ko ci euh, fële nga xam ne moom mooy Bakel bu ma juum xaw ma Tamba euh, Bougane est-ce que gaa ñi di ko defaral aw yoon. sëñ bu. Hmm. wax waxaat lu bëri wax waaye dama la kii di Bougane foo jaar dina ñam kas. Hmm. soo seetloo samay interview yàggul dara. Mm. waxtaan naa ci. Mm. moom nag bugaan kuy bokkam te bëgg mu teel a ci kaso boobu mën na faa teel a génn. Mm. saraxam duma ko détaillé dama koy àll. gerte la. gerte kem. kese ñu yóbbul ko ba mu di jiyee génn léegi. marché bi tas. Modou Lo Siteu ba tey dara soppeekoo. sëñ dama ne la làmb kenn du ko daj ba keroog suuru combat. dëgg la waaye dama ne la. mbir mi bu doon élection. man ah. Modou jël na làmb. jërëjëf mbokk internet yi bu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam soxna aada seexu yàlla bi soxna aada tey dinañ waxtaanee mbirum Bougane Gueye lan moo tax jamono yële dañ fi def ay élection ma jukkil la turam nga xool ko ne ma turam mu ngi yëkkatiku waaye buntu kaso mu ngi nii may seen muy benn ne ma opposition bi ñu ci bari ñu dugg ci kaso ma laaj leen mbirum Modou Lo ak Siteu nga ma dama wax ni bu doon examen la mën naa wax ni Modou Lo <laughs> jàll na tey danañ ko waxtaanee Sonaada bu rëgg lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ngeen sant bi Bprod Media. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال الناس والصلاة والسلام على نبي المرتضى الخائن sëñ buur maa ngi lay nuyu di la ziyaar la jox sa yéeguwaay. Mm-hmm. Sonaada. Bougane nga ca kaso ba finalement arrêté nañ ko. dana fa yàgg du fa yàgg sarax bu koy génne lu koy jàppale lu koy yëkkati foofu laa bëgg tàmbale ak yow tey. Buur. Mm-hmm. ba gaa gëstu ji gëstu na mm-hmm. ba maam yi joxe jox nan ma. Mm-hmm. ba bërki moo njaay dafa am ku ñëw naa ma de daa mel ne xàmme naa la ci internet bi. xam naa genre diingat wala seetantoog kii. far yàlla ndeke ñoo bokki maam. est-ce que ca xaale Amath Fall la bokk. te dafa ñëwoon uniquement pour dingat ci man ni ma ko gisee ñëwoon na am lu muy seetlu. Mm-hmm. ndax nee na ma soxna Aada jamono yi ci ginnaaw biñ naan Sonko day tëdd te yow yaa ko fi njëkk a wax dama ni woon xamoo dara. Mm-hmm. ndax dafa laaj ñetti kilifa yu bokkul ñu ni ko Sonko du ñam kaso. Mm-hmm. guddi yi may seet ci Sonko ñu may xamal ni day dugg kaso guddi yooyu laa doon seet ci bugaan nga ñëw man la na maytu na rekile. su ko deful amul lu koy teree ñam kaso. waaye bugaan ba tey gën a nooy mm. ndax bu fekkante ni mi may dégg wala ay mbokkam ña nga may dégg. Mm. du may waxantu. Mm. gerte kemb képp la bugaan di yëy ca nekk tekki fa boppam fekki fa boppam génn ci kàttanu yàlla ak baaxam. gerte kemb kese kese kese kese. waaw macha allah. nag dinaa la naan Ilaah Ba Alioune Bilay Barke Rasulullah. <laughs> Soxna la diggante Siteu a ngi gën gëm affaire ba ah, Siteu la fa entraîné ba am boos boos bari doole te gëm na ni que le 24 day déglu waa des arènes. yow est ce que nekkul Siteu nga faral. Ah? te man waa Siteu kay Siteu ne Modou Lo la ah, ñu wax. ba pimpi dama ci naan ma. waaw pour naa lekk cere yaayam. ah ii man kon waa kon man baa dañu këpp sama cere yaay. man de loolu la buur naa lekk cere yaay. <laughs> sëñ buur. <laughs> Uh-huh. wax waxaat du bëri wax dama la woon bu ma ci dama ne la kii di Modou ci gàllaaj gu wér la toog. Mm-hmm. te bu ma joxee picc mu ñuul xam ne yoonam nekku ci. Mm-hmm. kii di si tey it bu bëggee ba tey ubbil nañ ko suñuy porte ndax ñun kat ñaan yàlla rek lañ wax. Mm-hmm. sonaara nekk fi di farfarloo war a muy farlaa ko. mais yow ndam li ci Modou Lo gis nii. tey bu Siteu ñëwoon tey di la ñaan loo. dama ne la ndam li ma gis ci Modou Lo gisuma ko ci Siteu. waaye bu la Siteu ñaan loo. Eh? ma ñaanal ko damay ñaan rek sëñ bi. te am ndam. ah tam. foore nun tam ay secret la ñor te suñu secret yi ñor secret yi pël ci ëpp waaw dëgg la de wenente xuuxaan tekki tubay am na fu ñu jaar am fu ñu jaarate am fu ñu jaarate ci wàllum pël ah, te booba sa sedd na man de am na combat mbër bu mag bu ñëwoon ci yow bi ñëw fii la ma fekk lang ko defal ci muus nga ko defal añ ko ci garab ba bët jot ñu ñu coppati karaw muus ci nunkurunk gi boole ak moom nga ne ma bu soobee yàlla ku mënta daanal muus ba mu jaaxal Ah, <laughs> musoo gis muus di jullootoo ndiggam. déedéet déedéet la lañ koy nattee. walaay dëgg la Sonaara tey nag ñu ñëw tey ci bio tey produit yi laa bëgg na Sonaara ñu détaillé ko benn par benn ak njëg li surtout la gaañaan kaas Sonaara dafa dafa sab loxo. ah dinaa ko wax. waaw gars yi li tax ñu yab ma. ah ah déedéet gars lañ soxla. bi dañ leen di seetal ay soixante mille. ay cinquante mille ay yu kenn xamul soxna Ada ni leen seet vingt mille bu mu ci doon. waaw. maa wóor nag maa meilleur te maa ëpp a mais dafa xaw a seer tuuti. sëñ bu ma jëf la technique. Hmm. toog ak moom lang seetal ko te néewul yëkkat di jooy. nga xam ne man du ma nit. seet moom yaa ci toog barke alxuraanu démb am na daam bu jógee Gambie dama koo seetal ba muy jooy. billaahi wallaahi tallaahi dëgg la koo eggale. la man xam nga yow laa gën a yëpp ci àdduna. seetantuuma damay seet. waaw da ngay gis macha allah. yërëntuuma sunu borom may na ma Bachira. fan yee nee nga ñu lay sol pour sërëm la. waaw sëñ Buur. taal de bu ko yàlla taalee. xambar rek mu jël jëli. mais sërëm la pour lan. sëñ buur man ay sëriñ dañuy ñëw fii pour tibb ci sama wërsëg pour yàqal ma ko pour tëj ma. te ci mm-hmm. ñibbi tëju. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy ñëw ne dañuy sangu nañ leen defar. ne su leen mayee dinañ am te dinañ tijjeeku. ñu ñëw ma di leen yëkkati. ñoom ñu bëgg may wàcc. sëñ buur nag damaa xam ne bu sunu borom teglee. yedde digle ci defante lu baax. kon képp kuy def lu baax am lu baax. dëgg la. waaye képp kuy def lu bon am safaan wi. dëgg la. fii nit du fi wure ba tebbi aas. déedéet. man jeng saala coro ma jigéen ku ma làmbul ma làmb daj sama bopp. barke Rasulullah dëgg la dëgg la. man mi nga xamante ni ku gëm ni ndeer ku weddi ni ndeer. Hmm. sëñ buur. Hmm. réew mi maa fi mi yaa fi ne ñu doxal. leen de xamal naa la hmm. kilifa goo nga xamante ne yaakaar naa waaw su ma juumut mooy ngóor ñuy ñëw di ko jël si fi la la fekk. fi la ma fekk effectivement nga màgget màgget rek doy na wérati. ba muy wax dafa ni wax dëgg yàlla ak wérati bi affaire bi gëj na gëj na jug lool waaye fi mu nii maa ngi sant yàlla. billaay wallaay taala wax. yàlla sëñ buur kii ku mu layool daan la bokkuñu bàmmeel barki borom Tuubaa lool ma kii ku mu layool daan la. Mm-hmm. yaa ni jànguma maa ko génneel saa bopp. mooy ngóor gi lii mooy dëgg dëgg. bii la gone yi soxla bii la paa yi soxla. bi ma ànd soow mi waaw wala meew. wala meew wala tee lu ci doon. waaye lu yam ngay def ndox mi bañ a ëpp ndax dose bi dëgër. Hmm. sëñ buur lii maire yi bëgg bànneex ba tey te seeni góor mënatuñu barke yonent bi dañ ko fi jël si xam nan ko. nañ ko ñamal paari ba xam. Ah, ah, ah! <laughs> sëñ buur. est bii doo ko jël te sa guddi neexul say siddit jugur. soxna génne naa la sase yi ba pare poofu. déedéet dafa am beneen sase boo xamante ni ci ngóore yi boobu mooy mooy mooy pour patron yi. moom laay seet patron yi. waaw baa jeexul. Ah, kon dafa am ay patron ak ay kii. waaw ah, a. xam nga nag bànneex boo ko dee wër sëñ bu te nangu woo sa poos. te ñeme woo ko baye boo tëri. ah. bii lay jaay moo lay jaay weex la ngi nii. sumb bu weex bi ngóore la. yaa ko fa am. naan ko tàng jër. kii moom xam nga bii dangay naan nga ne da ngay xaar décalage bi bii dangay ngay naan léegi jugal léegi te bii pourtant nit naan na ko Europe. Mm-hmm. ci saa si nee na moom daa taxawle. Mm-hmm. bii mooy bi mën a njëkk kon nag bu weex bi lan lay def sëñ bu. boobu kay mooy xanaa. autoroute eh, eh, eh, à péage bi. bu ilaa fa. ilaa ilaa Kaolack. <laughs> amul sëñ bu. Ah. góor seeni si di tëdd mm-hmm. seenum ndox amatuñ ko mm-hmm. ndax seen man jeex na mm-hmm. yàgg na kii boo ko naanee day yëkkati loolu lépp te day yeeli nelaw ci yow mais mais li wax chaque jour néew na kuy jàmbat kàttan te jàmbatul jabet wala ndoxum siti waaw sëñ buur yow tam xaayaan ku dégg séeréer <laughs> su ma la indilee ndoxum siti tegal la tegal la hémorroïde tegal la jabet suukar waaw sëñ buur xanaa kon maa fi nekkal yéen ñëpp. mais soxna est-ce que sachet yi seeru benn ñaar lay jar. cinquante mille. benn cinquante mille. ku bëgg jënd ku bëggul bàyyi. xam nga sama aada nag du neexle. waaw doo ko wàññi tuuti. xam nga man nag dama du lekk neexal ndax santuma Juuf. doo lekk weexal. du ma nekk neexal ndax santuma Juuf. waaye léegi sama aada neexlewul amal joxe sa fukk say siddit jóg. sa guddi neex nga am sa daanu yu bari mais moom traitement sa si di tëdd nga tëdd le guddi jot yeeg bi di la woo nga nekk ci connexion bi tanaan ko damay liggéey. wala nga yor kurus gi tëdd ci si jaara gi tanaan ko maa ngi wérdi ci kanam. damay wér te wérdi gi ci digg lal bee dàq lépp sëñ buur. mais soxna de xanaa kon moom traitement lay doon. lii. wala ko boole ñett yëpp jël. bu fekkente ne traitement nga jël. waaw ci ngay amee lu dëgër kër ci lu sax dàq. comme nga am suukar am wala nga am ndoxum fekkee da nga am dañ la koy traité. Mm-hmm. bu dee danga nga am ndoxu siti dañ la koy traité mhm. nga jël ko su fekkente ne traitement ngóoro bi nga xam ne moo gën a assuré mhm. da ngay jënd ci galen bi waaw galen bi waaw jënd pomade bi mhm. bu dee li nga yor daa mel ni teef daa pomade bi mooy yokk ah waaw day yokk awra da koy waaw waaw boobu moom gaa di jël waaw boobu jéeg jee ma koy laaj te liñ ma koy laaj day bëri ndax jéeg ji ñi ma ci ñamaloon seeni jëkkër seeni awra jug na dijj na. Hmm. gudd na mel na leen nii. Eh, ah, sëñ bi ma xool dama xool jërëjëf bi laay. Aliou Charati yàgg fii li ma naa. wala waaw wala junj na borom xel waaw soxna Anta butéel bu ñuul bi lan la def bu ñuul bii. waaw xam nga mu ngi nii sawet mu ngi nii ma tëggal waaw. léeg-léeg ngay gis ku tawat sonoon lool. Ah. xam lu koy miti ndax yaram wi dafa fees dell ak tooke. Mm-hmm. yaram bi dafa fees dell ak ngelawu seytaan. Mm-hmm. ngelaw li dafa fees yaram bi dafa fees dell ak ay wàllu tawati yaram yu sewa a sew a sew yu bëree bëri ba la foolaal day mit. lii dama la ci tibbal tuuti nga mëq naan sa ndox. dem balaa vingt quatre heures nga ni fojjat danga naan lan nga naan. li soxla du këriñ. déedéet ah gisoo grain yi ci biir sëñ bi. Mm. yooyu boo ma koy laaj yëpp rek day fekk dangaa bëgg a xam. te yow loo xam sëriñ si xam ko teg ko ci seen i man maay man a espion. ah yéen yéen ay pirate. <laughs> sëñ buur. xanaa teg nga ma bët taay de teg nga ma bët trop trop. jëlal ma ba tey ci ngóora gi. waaw bii moom la ñuy booleel. yamul ci ngóora. waaw am na waaju ko jëloon di ko xooj nee na ma Soxna Ada butéel yi lan la ak foo ko jëlee ak lan moo ci moom da jël def si 3X. ma ko kooku nag secret bopp la. day raxas kanamam gi raxas bassin wambe ba mu set. waaw nga xam ne ci góor ñi nga xam dañoo am infection urinaire. góor da koy am leer dañ koy am dañ koy am dëgg la. ni jigéen di raxasoo ak a defaru ba du am infection. Mm-hmm. góor noonu la war a raxasoo defaru ba du yëg dara. dëgg la. infection bu la jàppee dëgg say sidditi awra du taxaw. Mm-hmm. day tëdd day nelaw du neex a yee. dëgg la. kii nag moo mën moo meilleur moo ëpp doole. waaw ndax dina dindi sa infection. dina yee say siddit te dina ko dëgëral. Mm-hmm. te dina defal sa awra ba la nga am lu jub. te yaa ci yegg de. waaw kon mbir yaa ngi doon soxla. sëñ buur. waaw. xale yu góor yi nga xamante ni danoo tër. Mm-hmm. sonaara ñu koy fay li jar ñu lay dugal ci wa xànjar yi xam nga ni liy taal bi saf na min na taal de. waaw aliwa xànjar. waaw moom xanaa kon pour noob la wala dara. xaatim Souleymane rek la ñuy dagg. waaw. def ci liñ ciy def dugal ci tuuri yi. waaw boyal ba mu yànj ba sens ñu teg la ci. waaw xarum waaye ngay day waaye boo ko déggatee maa la ko moom xanaa ci nopp lay dox. ah xarum waaye ngay day waay. waaw xara ni ni neem di. waaw dëgg la waaw dëgg la. da ngaa mooy raw bote mu ndaw moo teg sa wet di ko raay. petit mouton. maa la ko loo boo waaw mu ne waaw boo nee déet mu ne déet mu ne déet boo nee na mu ne tàll boo rek yor sa commande di zappe fu neex waaw soxna loolu boo ko joxee jéeg bu amul xel man dama koy jox jéeg ji nga xamante ni seeni borom kër ñoo raw requin waaw waaw fu ne la ñuy dugg te la ñuy ñam waaw man na bokk man ne wax dëgg yàlla man moom du ma requin du ma wax dëgg yàlla jooju mën naa ne yàlla rek a ko xam. nit ku nit ku baax la nit ku nit ku am yërmande la. ah waaw ma ne loolu yàlla rek a ko xam nit ku xam li may li may def la nit ku nit ku yem la. sëriñ sépp nag dañuy tële liggéeyal seen client teg ko di ko xaar. waaw yow Soxna Ada ah, liggéey ba liggéeyal ay client am toog di leen. waaw yow de du la woo Soxna Ada lan moo waxoon. sëñ bu. Hmm. deru gaynde ma ci liggéey noob bu am solo secret bu am solo. fàtte naa koo teg ci table. deru gaynde secret noob. ak gaynde. waaw. wax ma. gaynde bu yuuxoo lu lay wax. kaxaaru. yaa kaxaaru. sëñ buur. Uh-huh. bu gaa yi di wër di montali ko ñii di wër di nappe ñii di wër di xuuxalaate ñii di tiitalaate te duñu am résultat. Hmm. bu yàggee client yi daw. dëgg la ñawoon buñ yokkul wàññeeku. Hmm. xaw ma ku gëj a xëy waaye man maa ngi xëy bu baax. macha allah. dëkk bu dëgëree ña koy yëg duma ci bokk ndax booy liggéey ci réew mi di def preuve yaa woon nit ñi hmm. ndax ku ko ñama koy egge ka ca des waaw dëgg la de xaw ma lu jafe waaye kaay ma nettal la moom jafewut ci àdduna te bàyyi yëg nga ni soxna aada ñi bàyyi woon ci wàllu ñaan ni décidé na ñaanalatu leen ñoom ñooy wër ci suuf di wax ak ñi ma jege ngir ma rus leen ubbi leen samay porte pour ñu ñëw ma ñaanal leen kon ñaan preuve loolu la ubbil porte yi. barke yonent yàlla Muhammad ba ma waaj di woo jàmbaar jee ngi toog. Hmm. koo xamante ni ci wàllu seet li ma ko ci waxoon dala dañ hmm. bis jot la ma ko waxoon mu dund ko hmm. sëñ buur bala may dem ci loolu yaakaaru bi buñ kuñ ko bindee adat ko hmm. dugal ci sa tur yow ndaw si ak waa ji nga takk ko dangay ngay mel ne gaynde ci sa waay loo ko dicté loolu lay def kii ku ñeme gaynde man la ñeme ma gaynde ñeme nga du dee ñeme ma pour dire boo ko takkee sa ndig yaay moom sa jëkkër moom sa xolub jëkkër loo ko digal mu def loo ko digal mu def. waaye gàllaaji soxna Aada léegi boo déggee ñu naan dafa seer. waaw preuve a tax. te damay bëgg a dee nag nit day ñëw pour prouvé ci moom dajal ko lu ne ay mbiram neex mu toog ci ruq man da gën ngaa prouvé ci man. duma ko def yow heure bu sa yaram neexee nga ceen ci jëmale ci sëriñ si. man nag maa teg bët moom vraiment. waaw kon toogal rek ñu seetaanante. te noonu la naqaree samay supporters nag. nañu jooy nañu. xam say taalibe dañuy wax mais man samay supporter sëñ buur petaaw yi may petaaw guddi yi ñu toll. Soxna doo ma doo ma seetal fii tuuti rek. dawoon naa ko di ko maytu. maa ngi ci petaaw yi dimbali ma seetal ma tuuti waaye soxna. yi petaaw. Ah. mandi na meew bëy. waaw. ba gaañi siñ. waaw. ñu mandile ko deretu règle mosoo koo dégg. asbi allah pour pour gis. <laughs> kii bu waree wax day wax. kii moo ma wax ba wax ma saraxi bu gaan waaw ah, seet day seet day kenn billahi wallahi taala loolu mën naa ko seede seet rek. ay saraxam bi ma ko waxee mbir mi dalaa yéem. waaw yow am na wala amul. am na. heure bu ma waaqee ba jeex ba bëgg jeex war gis di gis bu ma gisee gis lu gën. ci moom bugaan. ay saraxam. gerte la bëriwul jox leen ko mu lekk ko mën a génn ne. live nga ma dugg ci ma xamal la ne la sëñ buur hmm. nga ne ma Macky Sall sa naada daa war a ñëw ci dëkk bi xaw ma lan ak lan man la est toogam gënu mooy gën ndax boobaa day yàq taaw man la kii di Sonko ak Jomaay guddi yi fi ñu toll dañoo dëgër Macky da nga ragal mu ñëw ñu tëj ko soo déggee man la guddi yi Jomaay ak Sonko fi ñu toll dañoo dëgër live booba bañ koy def Sonko wooteegul de ba mu wooteeg léegi lan ak lan fa xew ak ñaata lan am. mbooloo mu bari am cinq cent millions. sëñ mën ngaa luye ku la neex waaye nit kenn du ko luye. taxawaayam njëkk la de. non nit a moom xolam nag moo koy orienté ci lu ko neex. dëgg la. moom nag bu ma amee lu ma koy yedde ak di ko ko yee. Hmm. nay jéggale jëllale. su bëggee nguuram sori. nay jéggale di jëllale. Hmm. te gaa fii nag ku deful li ci ëpp kenn du la xoñoñal mm-hmm. waaye na wàññi rek ndax lay sa sadidu bi surra mm-hmm. inama sadidu man yamliku nafsan indal ghadabi dëgg la jàmbaar nekkul ku mu geeral rek doo la ku fañ nga wàcc mm-hmm. d'accord na nay jéggale nay jëlle kon sëñ buur samay produit ku ci ñamul doo jugal te doo taxawal ta ñi jota ñam ñëpp nag yaakaar naa ni démb fi feesoon na deel waaye tey rës na lool. kon ñëw leen commandé. <laughs> waa axiru dawaan anil hamdulillah wa salaamu aleykum wa Buur.